gars yi image bi bu sedd sama xol la sedd seen xol sedd seen xol euh, sedd xolu képp koo xam ni euh, maanaam nit ku ñuul nga te féete fii ci Afrique sowu jant xibaar boobee mënuma ko bañ a partagé nag yéen ndax euh, partagé ko yéen ay ngëneel rek laa ci gis gars yi topp leen ma Alexandro Balde def leen seen i abonnement ci li nga xam ne mooy YouTube bi yow mi door a ñëw bula la bi ci xur mbuujee maanaam saf na la laalal ma sama abonnement bu fekkentee ne yow mi ko def ba pare nga xam ni ab fan sa Aladji Malick TV nga yow daal li ñu lay sant mooy aimer vidéo bi bu la neexee commentaire waaye emee ba moom na nekk loo xam ni loo jëmbat fulaak fayda la Alexandro Balde yéen ñëpp xam ngeen ko catalan yi seen xool dana sedd ndax catalan yi nga xam ne ñu ngi féete ci Afrique lu mel nii su amee dana leen neex ndax danañ xam ne Afrique ñi ne Barcelone am na cër bu rëy rëy boo xam ne jox nañ ko ko tegal leen ko ci palaatub ceeb gis ngeen ko Alexandre Balde mu nekk fële ca Guinée Bissau di dëkk boo xam ni foofooy ville nataalam maanaam ay mbokkam fa la nu féete ah, di ay waajuram waajur yooyee nag nga xam ne daanaka séddoo nan kii ah, nekk fële ca Espagne kii ne fële ca ah, fi nga xam ne moo nekk Guinée Bissau waaye nag defal na leen honneur dem ba àgg ca ñoom lekkandoog ñoom ñànkatan ak ceeb. ñànkatan goo xam ne daanaka dana am diwtiir ngeen gis ko ci image noonu nga xam ne lii lu am solo la ci ñi nga xam ne ñooy nekk ci réewi tubaab yi dafa football tey seen jëf dëgg-dëgg lépp mi ngi soqi ko Afrique ndax tubaab yooyee daanaka jamono ju neex a leen boole waaye buñ amatul ci yow soxla dañu lay wiccax sànni kon loolee boo ko teelee xam te it nga di football ci seenub équipe bu dee mënta ñàkk war ngaa xam amuru fa nga jógee nekk foo xam ne daanaka lu am solo la ci sa wàllu histoire moom mii di gone gi xam na ko teyit gis nga ko ak kilifa ya nga xam ni ñoo ne ca village boobee nekk fële ca Guinée Bissau nekk ci wetu Sénégal góor yaa ngoog ngeen xam ne jàmbaar ya fa ne ngeen gis leen noonu ak seen i yére wolof ñu firnde ni ñii nit ñu baax lan ñoo xam ne ngi nekk ci déndu Afrique daanaka tamit boo koy xool histoire départ Sénégal la ñuy nuróol benn par benn ndax bu ñu xoolee daanaka colin géel yëpp nga xam ne Sénégal Guinée Bissau Mali Gambie loolee lépp ak euh, Guinée Conakry benn dëkk la boo xam ne bu am solo la ba mu ci jógee nag la ci gën a neexati gën caa ci xurmbuj sol na li nga xam ne mooy drapeau euh, bii di euh, équipe bi nga xam ni moo nekk équipe bu Bissau Guinée ñu naan ko Guinée Bissau cant ngërëm ñeel na leen gars yi kontaan naa ci yéen